إلى صحف إبراهيم وموسى asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu ci ndigalul sëriñ Abdou Fattah mii toog di leen ndokkeel di leen bal xaq te di leen balu xaq yàlla na nu yàlla boole jëkkal di bokk di sant yàlla bu baax ci may gim nu mayoon ñu fekkee weeru koor lañ ca jot jëf mu néew mu bari yàlla na ko suñu borom nangu mu mel ne weeru lëmm jóge na ci suñu dund te du dellu waat ñu war caa jàngane lu nuyoo rek tàggoona ay fan ci gannaaw jàmmante yépp daana ca bokk ndax yéen ngi waajal koor gi tey jii mi ngi nii di dem yàlla na nu fi bàyyi ci jàmm te fekkaat nu fi ci jàmm kenn bañ koo wuute sëriñ bi nag jollu du dénk ñu gën a fab sunu tànk teg ko ci taqwallah ak sukkandiku ci moom taqwallah nag gudd gàtt mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere suñu boroom ne ku jëfe ndigal yi bàyyi tere yi lu mu dugg lu mu rëy rëy bunt ba ko cay génn suñu boroom moo ko koy sàkkal ca mbir ma wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib waaye nee na ku teg tànkamit ci taqwallah lu jafe ñépp mën naa yomb ci moom lool wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra waaye nee na ku teg tànkamit ci taqwallah bu ëllëgee rëcc rëcc yam xamoon ak yam xamut yëpp suñu borom mën na ko ne mën na koo far ni ni aw rëdd dal nañ ci yàlla boole wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra sëriñ bi nag wax ne ci fan yu néew ci gannaaw ku ko seetlu da nga gis ñetti aayay alquran yu suñu borom doon wax ñun ñu teg suñu loxo teg suñuy gët suñu borom waxoon nañ ci alquran ne yuqallibu llahu layla wannahaara inna fi dalika la ibratan li ulil absar sunu boroom wuutal gi muy wuutal guddi indi bëccëg wuutal bëccëg indi guddi nee na ku ca jàngewu dara am xelam gàtt na njàngum kese ca nag waaye newoon na it dana leen wan dana nu wan ay kaawtéefam tàmbalee ko fii nu gën a jege ba faa ba ñu xam ne moom yàlla daal mooy dëgg sa nurihimu ayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq bi may ba ca topp moom lay mujje bokk yi fan yii nga xam ne moo jàll yaar ba yetti weer suñu boroom wëlbati na fi jamono wëlbati goo xam ne ku yebu tàmbalee ci moom yam ci moom rek te su ma waxee tàmbale suñu borom yem ci moom mooy tàmbale ki sëriñ bi yem ci sëriñ bi ndax suñu sëriñ bi ni ko sëriñ Muntaxa di waxee bi mu fi nekkee ba bu ñu ko mujjee gis yëpp ci boromam la nekk kon ku topp ci moom ne ko jàkk di xool yaa ngi ci topp suñu borom fan yi weesu nag yàlla wan nañu ko ñu gis ko bokk yi li fi gën a fës ci ab xew-xew ci jamono mooy ñi jógoon ay lawax ne dañuy sàkk ku leen dink suufu Sénégal si ak li nekk Sénégal lépp loola suñu boroom wan nañu ci ne ku yabu tàmbalee ci moom yam ci moom ba ñuy tànn tànn nag boo ko gisee dana am ñu jàll am ñu jàllul te it tànn ci wenn xeet lañ koy def bu ñu ko jëlee misaal ci lu ñu gën a jege ña sunu boroom tànn rek ñoo jàll bokk yi nit dana jël aw jiwoom def ko ci ak leket leket gu ràmm def ya muy def ca biir jox ko as ngone mu yanu ko ne ko bul wax loolu lépp gone ko dañ koo tànn tànn jiw wa waaye bu ñu demee ba kay tooba tooba ba ñuy cof di sànni dana am fépp yoo xam ne du dem ca po taw ba ma tànnuñu leen waaye bu demee bay saxe dana am yuy sax am yu dul sax ya saxut dañ leen a tànnul suñu demee ba ñor ba yëpp ne saññ sa gub it dana am yoo xam ne duñ ko jot a góob ay ficca fay ñëw for ko yóbba yóbbu ñu leen ñu war a bokk ca gubbu waaye buñ ko góobee ba yóbbu ko ca dàggaje yi bu ñuy bojj am na yoo xam ne fa ñu leen fa ñu koy banqué di ko dugal ca tuq sax wala gënn ga ca la ñuy ruuse wadd kontaan nu ñu leen ngir ñu war a dugg ca gënn waaye bu jógee ca gënn ga yi ba war a soq ko yóbbu ca kër ga noona dana am yu wadd bu ñuy soq noona bu ñuy foof noona bu ñuy wal noona bu ñuy mooñ ba àgg ci siim bu dem bay siim it gone du mën a gën a ci gémmiñam nam koo waree am yu wadd leen ci loolu nag danañ ci gis lu kiimaane li yàlla ne dana wane ci ay kaafu téefam ci gox yi tàmbale ko ci nun la wax yooyee am na ca koo xam ne li feeg néewagutoon ne danaa bëgg a dama bëgg a bokk ci ñiy tànn jox leen réew mi du faatu mukk am na ci koo xam ne fekkewu ko am na ci koo xam ne it ñay tànn nee nañ ko mën ngaa bokk ba mu bokk waaye moom itam ba yëfey sotti fekku ko ci sagoom ba ñuy samp ka ñuy samp ci coobaree suñu boroom fan yu néew la ko fi yàlla jëlee ñoom ñëpp yàlla na yàlla yërëm te jéggal leen te defal ñu xool bu ñu leen mën a muñe waaye ki nga xam ne it moom la yàlla dogal ñu tànn ko lu yéeme la sa nurihim ayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim bay yatabayna lahum alxaq koo xam ne ba muy um koor fi barab la ko fekk ba koor ga demee ba sori yàlla tànn na ba noppi ne ay feppam jeex na foofe mu nekkoon waaye yàlla dogal na it fepp yi nga xam ne tànn na ko mu war koo jëfandikoo li des ci koor gi am na feneen fu mu ko war a fekk fu dul foofee dafa la ko fekk ren kon boog yàlla na nu yàlla dimbali ba ñu tàmbalee ci moom yem ci moom kepp waaye ba may jeexal tënk na lépp suñu borom dafa ñuy wax ci alxuraan ne juróomi yëf a ngi ni yoo xam ne dénku kenn moo ko téel moom daal euh, moom daal nag soo ngeen gisee mag ngi daan firee wax waxdahu laa sharika lahu waxdahu moom daal mooy koo xam ne kenn mësu koo fekk fa mu nekk te kenn dutu ko fa fekk nee na juróom yi dénk ko kenn moom daal moo ko xam moom daal moo xam kañ la bis bañ taxaw moo ne woon ci alxuraan laa taatikum illa baxtatan waaye nee na moom daal moo xam taw bii doonte xam-xam wane na ni suba sa ngoon mën naa taw wala ginnaaw suba la xam-xam ba yàlla téye ko jox kenn mooy taw boobee lan lan lay ñoral loo xam ne nit da koy lekk wér ci wér dem wala nit da lekk ñu wala ñu saraxale ko tax waaye nee na it léeg lekk nit gis taseg jigéen ci mbedd mi ne tarafet xool ko xam ne kii kat bokkut ak nam meloon nam ko xamee woon kon soppi ko na lam àndal xam-xam dem na ba di tàndale naan góor lam jigéen la wala kenn la wala ñaar waaye la ca yàlla téye joxu ko kenn mooy kii day gudd fan walla day gàtt fan day am wërsëg wala da koy néewli day taxe ëllëg wala day taxee ak day am taxawaay wala day ak ndaama lay doon waaye ba ci topp te wënu ko jox ko kenn mooy tey nit ki mën naa am dara mu néew mu bari waaye wóoru ko ba xam dana àgg ëllëg suba dana am lam amoon tey waaw wala déet waaye ba ci gën a yéeme mooy nit ki xamut san suuf lay faatoo nit dina toog ci am réew ay at yu xelam du mas a nekk ci génn waaye saa bu digg ba accès génnam day yomb lool ndekete yoo day dem war a faatu ci inna allaha indahu ilmu saa wa yunazilu alxaysa wa yaalam ma fi l arxam wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut inna allaha alimun xabir yàlla mi nga xam ne xam na lépp dañ kumpa ci lépp ñun ñii dañuy xam dara ba foo ko gisate ëllëg xàmmee ko waaye yow mi laata nga koy xam wala man mi laata ma koy xam suñu borom xamoon na ko bu yàgg yàgg te dañoo na ci kumpa xam na fépp fu muy mujj kon boog sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañu gën a maase fab suñu tànk teg ko ci taq wallaahi jëfe ndigalu suñu boroom yi te bàyyi ay tereem te wéeru ci moom te bàyyi kook suñu bopp mi ñépp lañu ñu jaamu yàlla ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu mi ngi ñaanal ñépp rëcc rëcc yee ca jot am yéen ca xam ak yéen ca xamul yépp yàlla nañu ko suñu borom jéggal di ñaanal ñépp nawet bi nga xam ne moom lañ dëgmal yàlla nañu ci yàlla jàmm te suñu borom wàccal nañu ndox mu barkeel mu moo xam ne la cay ñore lépp ñun ko bokk muurloo dellu di ñaanal nag nga xam ne moom la suñu borom teg kilifteefu dëkk bii ci loxoom muy suñ abu baraka suñ abu fata mooy wax ñaan googu bu ko yàlla nangoo yàlla na ko nangu yàlla na ko lawal ci njaboot gi yëpp waaye it yàlla na ca baal xel bu baax a baax ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi Cheikhul Khadim te it liggéeyam bii nga xam ne moom la di liggéeyal Cheikhul Khadim di ko liggéey yàlla jaarale ko ci sëriñ Touba nit ñi war koo jariñoo mu jariñ leen tey ëllëg sëriñ bi nee na saa bu geesoo rek yàlla nañu gis ñu topp ci moom di ñëw bokk moom moom di ñaanal ñëpp di sant ñëpp kat yi waxoon gën naa gudd gën naa jot waaye loolu la ci waxtu maye ak sama xel mu gàtt yàlla nañu ko fekk déwén te déwén dàq ren fuuf te it nee na naay baamu la koo ko waxoon suñ fallu rek barkeeloo ko ca ba mu ñëwee ne ko dama la soxla waxtaan mu ne ko maa ngi lay déglu mu ne ko ah cig wéet laa ko soxla woon mu ne ko wéet ga day su wéetee it ñii moom maag ñoom benn lañ danaa leen ko waxaat mu ne ko damaa topp borom barak bi ba gisatuma ko ma ñëw ci Cheikh Moustapha ba gisatuma ko mu ne ko ah léegi nag mu ne ko ma ñëw fi yow fas yi ànd ak yow lu yàgg yàgg yàgg yàgg mu ne ko bul noppi yàlla na fi nekk lu yàgg yàgga yàgg yàgga yàgg te bàyyil ñu suñu Abdou Fatah ak mbokkam yu tedd yi mu àndal suñu Abdou Lahad Cheikh suñu Cheikh ak mboolem seeni doom ak seeni doom ba gudd ànd ak wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu